yee baabu waan salaamaaleykum salaamaaleykum du bëggee waa Dakar Net ah, ah di leen bëgg bu baax a baax di leen jaajëfal di kontaan si bi ngeen ma dalal aussi tamit quoi. xam nga euh, sénégalais lu dina ko dal ku kante xam li gën a bon si àdduna mooy mag mu ñeme yàlla dëgër fit mais ku kante yaa taxoon naan ay yowmal ashura yowmal ashura yow ma tamaate yow ma ñambi mais yow ma nag ñëw na te yow ma fen nga amul sens quoi nit ki loo mënul bu ko def ni ñi wax leen dëgg bul bëgg a bës bay créer leen ay xar géej papam sax mënu xar géej wax ma la ak moom nit nit dëgg yàlla da moom moom lan la moom du sëriñaa ah. moom benn féticheur la te temps yi am na problème sérieux ak population bi lii neexul instant bi xoolal moom ay temps xool Kounkandé xool xool fu ko neex njàpp mais léegi xool Kounkandé mënatul dox loolu léegi Kounkandé mënatul doxantu di génn léegi Kounkandé mënatul dem plage ndax fen yi mu fen Sénégalais yi ak nax gi mu nax Sénégalais yi ak yaakaar gaa yi mu yaakaar boy yi tas booy bu gën a dem Espagne ñii jaaneen seen ay oto <laughs> ñii jaa <laughs> ñii ñii lépp xaalisu jàmbur pour dem Espagne Kounkandé xool xañ leen ko ñii tey seen ay doom pour Espagne ñuy jënd ay sac pour Espagne ay waay naan damay dem Espagne entre cinquante mille xam nga li may wax ni adduna bi léppay fay sàcc day fay duul yu metti day fay liggéey day fay lu grand expliqué nii de un mois xaw ma avant tros bi nga jàpp ni ñi saa boo xëyee dégg kookante kookante anam la jeexul yent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi muy xar géej ak yatam boobu noonu ah, bi muy tëb di xool kii Firawna moom xamoon sax li nekk si li mu am dama yatam boobu xoolal waa Jibril ko wax na ko il répète trois fois ni ko sànni sa yat bi Moussa Moussa déggu sax li li ko yàlla di wax après la ko yàlla may fatku bi muy sànni yat bi la géej gi tàllee ko yaakaar ne ay xar géej nii la quoi ni mën nga taxaw une semaine fooy naan da ngay xërëm génn ay luxus xaalis loolu fétiche la xam-xam bokkul ak fétiche yu naa naasu sexra moom féticheur la Koukante du sëriñ na gaa yi xam loolu du sëriñ un féticheur man nekk ma seede su ma demoon géej ma gis que ni nga réagir si moom nii non man man awma boobu jikko comme di ko fexewal nii ni du dama ki bàyyi mu g géam ndax loolu lay def gis naa ay vidéo ay guddi mu géej di film boo xam naa nii di njaab ah di sotti ay ndox génn ay béjjën sama waaye ni ñun du naay dof nan wax waxu nit nekk ay nit fen baaxul waa beneen durkat dina ñëwaat wa beneen fenkat dina ñëwaat gën a fen senegal yi loo gis si àdduna jàngal la genre kokande yi mooy genre police mbay rek dañuy xëy teg seen affaire man su ma neexoon damay xëy rek ma collé fii ma collé fii taf fii naan dama accident wuy wooy ñu ni diñu par exemple dii nii amul sens non kooku jeu que le film la kooku loolu mooy liggéeyam benn genre xool comédien la moom wax na leer waxu dof waxu dof waxu dof yëfu dof waxu dof ak dëju dof c'est simple man lépp dof laa ko jàpp moom dëggam sax dëju dof la naka gem quoi li muy laaj moo ko laaj moom mooy gem loo man géew ma loolu quoi am noonu laaj bii si amuñu problème police moo nu jaxase woon mooy loolu quoi mu ngi job job maa ngi job ma job na quoi waaw amuñu benn problème maam moom quoi waaw sequn jàmm nu seq mooy loolu quoi waaw vidéo ki mooy affaire visa bi loolu artiste yàgg nañu koy def artistes yëpp a koy def ñoom ñëpp ay jaay visa tout amul artiste buy dem concert tournée te doo da nga koy def yi di jaay visa yi di ko jaay marché ambulant yi bool bool yi déggoo ñu la business yow ko amul xëy nooy amee xaalis amul xëy di liggéeyante ay millions power in the money money in the power visa yàgg nañ koy def di ko jaay business la maanaam dafa mel ne xool trafic drogue artistes yëpp ngay gis ñoom ay tournée di dem ak di ñëw la ñuy jaay visa Baye Fall bay ñaata artiste nañ fi jàpp ñaata artiste nañ fi jàpp ñuy trafic visa di ko jaay ah 4 millions 3 millions 500 yóbbu la BCA takkal la casque def la artiste rappeur par force nga dem déposer ambassade ñaata nit nañ fi saisir si côté yooyu ñaata nit nañ saisir seen kër yi nangu seen kër yi am na ñu ma si xam nangu seen kër yi ndax visa ndax trafic yow réew mi booy fekk euh, waa mais kilifa moo fës nii rek quoi mais ñoom ñëpp a def trafic bi ta ñoom ñëpp a def dem di teg ay politiciens di ñu leen jox ay terrain ay nii naan damay dimbali ñii fekk na sa bopp ngay dimbali mafia bu am na fépp dañuy sax ko am ay millions sax dem benn jàkk jox ko benn jox ko imam bi imam bi dem yóbbu ko si bitigam ba mu yóbbu ko këram moom kase man maa njëkk taxaw wax leen waxu yanamar ñoom ren la ñu sax soo gis nii man wax naa leen lépp ñë booy ñu naan la mouvement boo gis fii dóorkat la ñi ngay dégg ne ay mouvement la bokk mouvement temps mouvement yëpp ay dóorkat la ñoom ñëpp ay dóorkat lañu waaye élection boo ba ñaata nit ay dee ba amee rassemblement boo amee xool monument ba ñaata nit non dañ koy sib kay yow su bokk sax boo amee xel da nga xam ne lii foo mu am mbooloo bàyyi fépp fu mu am ñuy def ni noo def moom ay sacrifice foofu fépp la mbooloo daal mbooloo boo gis fépp la dañuy gis ay sacrifice nii moom tey élection tey exemple bu amoon tey léegi di noo def nga kenn ni ku dee moo tax problème baaxul mouvement naka ni ngi di daw ñu xeex bataille psychologique ak xel mais xeex yorul réew xeex xeex taxul ñu kenn avancé entre Sonko ak Macky Sall li am ñuy tensé waa ñaata ñu dee ba ba ek saraka yow bu doon foofu yow wax dina la neex kon li ko waral nag mooy problème boobu moo tax ñii ñii ak ñii ñii ñii pour problème yi nii nii 2024 sorewul saaga yàkkamtee xeex la rang